station boo xam ni euh, bu bu tàngoon la lool niñ ko tubaab bi waxee une con euh, ab confrontation houleuse boo xam ne amoon na si ñaari ñaari euh, ñooñu nga xam ne jotoon nañu fi bokk liggéey. Hmm. certainement jot nga suivre actualité boobu ban commentaire nga siy njëkk def. <coughs> waaw commentaire yu bari lañ ci mën a def. Mm-hmm. li ci bi bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a def moom woote bi moom képp koo xam ne nitu dëgg nga. Mm-hmm. te gëm ni république ci lañ nekk danga nga koy rafetlu mooy dañ leen war a woo. Mhm. Sénégal euh, justice bi déglu leen ñu xam parce que bu ñu leen dégluwul duñu xam. Mhm. kon loolu ñëpp a ngi koy rafetlu loolu kenn amu ci problème jàpp naa ne ñun loolu lañ doon ñaan te ñu ngi ñaan mu continue mhm. waaye nag demin wi demin wi man am naa ci problème démarche bi. maanaam loolu yoonu justice nekku ci. parce que justice moom du wax ku ne nooy ñëwee yaa xam nooy ñëwee. Hmm. mais demin demin wi aji saar dem man mi nga xam man sama xel mi kenn mënul fexe ba ma tëj ko dama ciy xalaat. Hmm. mooy gis naa ni demin wi day wane ni euh, am na luñ bëgg am na lu ñuy waajal li ñuy waajal mooy ki peuple bi gëm ni euh, dafa tilim. Hmm. dafa tuumaal as kooku dinañ ko habillé ba mu rafet teg ko ci kanamu Sénégalais yi wane ni kooku ku set la. demin bi lu ci ne. waaw demin bi boo xoolee ku mel ni aji saar démb boo ko mm-hmm. gisee mu sol ab robbam xaw ma pyjama la xaw ma. yaa ngi dégg robb la. non nuru na pyjama mën naa nekk robb mais mais robb bi robb bi rek problème la. Mm-hmm. yaa ngi dégg maanaam ànd ak sa avocat ànd ak ay garde corps. Mm-hmm. ñu jël ay nit dajale leen ñu taxaw. yaa ngi dégg di wan naan justice pour Adji Sarr loolu moom jarul ngay jàng pour xam ni scénario la scénario boobu nag dafa bokkoon ci lu yóbbu réew réew mi naroon a yóbbu réew mi ci kaw ci mois de mars te scénario boobu la sénégal yi di bañ moo taxoon Sénégalais yi génn ci mois de mars parce que Sénégal damay wax ni boo leen xamee dañ leen di respecté Sénégal peuple lañ boo xam ni peuple bu am tolérance lañ waaye peuple bu ñor xomm lañ te gis nga dañuy wax ni xam nga balu teng si boo ko dóoree nii ci miir day dellusiwaat ci yow maanaam am na scénario yoo xam boo koy joué nga jàpp ni scénario bi baax na bu paree rek lépp day dellusiwaat ci yow boo seetloo démb ñi ñi yoroon pancarte yi di wax ni justice pour Adji Sarr bon dama leen am na ñu ma gis ci Facebook bi néew ma moo am waaye gis naa leen ñu ñu wax ko te kenn démentiru ko ñu ni ñoom dañ leen a fay cinq mille pour ñu yor ay pancarte taxaw ak ay t-shirt wana ni dañuy taxaw pour justice pour aji saar parce que image boobu dañ ko bëgg a wan bitim réew mhm. image boobu dañ ko bëgg a wan bitim wan leen ni euh, wan leen ni ndaw si ñuy wax ni sénégalais yi ñu ngi ànd di ko soutenir image boobu dañ ko bëgg a wan occidentaux yi mhm. parce que occidentaux yi ku ne xam na ni sawaruñu sawaruñu wala boog ñi ëpp ci ñoom intérêt yi ñu am fii jàpp nañu Sonko dafa pare pour dindi ko delloo ko réew mi. tàmbalee nañu ko denn yaa ngi dégg sax. waaw mhm. léegi ñoom dossier bi dañ ciy dugg saf ci sàpp. Mhm. moo tax léegi lii xew fii ñoom it dañ ciy bëgg euh, dañ ci bëgg gisaale seen bopp. mooy ñu ngi wan tubaab bi ni ah image yi fi jaaroon mois de mars kat ay wax la woon rek. Mhm. waaye tey peuple bi kat jóg nañ nag pour wane ni Adji Sarr lañ àndal. te loolu scénario la. loolu. profil bi réew mi duñ ko nangu parce que réew mi bugguñu ko leen nax réew mi dañoo teel a jàng réew mi dañoo xàmme am tolérance nag toog seen ruq mais boo leen jàppee con wala nga jàppee leen dof di jouer say scénario da ngay dem ba scénario bi balu tàng si la boo ko dóoree mu del siwaat ci yow xam nga aji Sarr kenn waxul ni du wuyu ji waaye nit kuñ violé nga ni yow dañ laa violé viol répétitif buñ fàtte mooy c'est important loolu la doon wax ca commencement ba dañ ma viole viol répétitif ba noppi yor ñaari fital buñ fàtte mooy yooyu xam nga kuñ def loolu jàpp naa ni li li xel nangu logique nangu ko boo jugee di dem di nga am tuuti kersa xaw a nëbbatu xaw a làqatu xaw a triste xam nga li ma wax parce que lii logique la parce que booy jàng wàllu sociologie mooy ilmul ijtimaa yi nit bu dee dafa am choc nit bu dee dafa am choc surtout jigéen bu baax traumatisme day feeñ traumatisme day feeñ mhm. waaye da ngay gis ni démb aji saar bi nga gis aji saar bu ñu waajal la ci ay question aji saar bu ñu waajal la pour ne ko yàqal deru Ousmane Sonko tous les moyens son bons pour wane ni Sonko tëddee na la mais est-ce que du dafa gëm aussi ne li mu tuumaal moom gëm na ne lu am la aussi non man gëmuma loolu mhm. xam nga aji saar liy wane ni li muy wax amul dafa bari parce que ay waxam dafa am contradiction ci lu baree baree bari yaa ngi dégg ay waxam la parce que waxam ju njëkk ak ju mujj dafa wuute yaa ngi dégg démb nag li xew xëy na ay loxo nekk ci suuf pour organiser ko waaye dama gëm ni fii laa koy waxee mooy duñ ci am ndam parce que dossier bi benn juge ñimewu cee jàpp Ousmane Sonko benn juge kenn ñimewu ko man loolu laa gëm yaa ngi dégg mu des nag léegi nan la ñuy saliré image u Ousmane Sonko loolu ci lañ nekk te loolu it du jàll parce que réew mi dañoo nekk nit ñu ñor xom looy waaj a xalaat xam nañ ko looy waaja def xam nañ ko dañuy toog nag li olof naan mbott danga koy xaar ci taatu ndaali yi Sénégal dañ leen di xaar ci taatu ndaal yi rek yaa ngi dégg pourtant day Xadi Njaay moog Aji saar ñoo fa nekk ndoon est-ce que gis nga ko fa taxaw naan justice pour Ndeye Khady Ndiaye ah Adji Sarr dafa ëpp ay moyens Ndeye Khady Ndiaye kon Adji Sarr bu amee ñu koy taxawal di ko yëkkatil pancarte xamal ni am na loxo yu nekk ci ginnaaw. mais teewul c'est important. Mhm. am na loxo yu nekk ci ginnaaw. lu tax defaluñ ko Ndeye Khady Ndiaye. Mhm. yaa ngi dégg kon dossier bi maanaam geste bu teg rek day gën a leeral complot bi man loolu laa gëm. Mhm. ci en tant que kuy analyser. te billaahi li may wax ni par parloo loo ci. parce que man mais encore yàgg naa di ko. Sonko gënaluma sama bàmmeel. parce que ma fa duggee duñ fa fekkante mhm. waaw mais euh, noo noo gisee également teewaayu partisan yu Sonko yi ñoom luñ fay def ba ah. doon dàq ñi nga xam ne ñooy euh, souteneurs yi Ousmane Sonko yi euh, pardon yu aji Sarr yi hmm. confrontation sax jot fa am ay coow jot fa am est-ce que seen teewaay foofu jaroon na ko waaw léegi bu dee gëm nañu ni mbir mi complot la que du mujj fenn waaw xam nga kenn dafa gëmul ni du mujj fen xam nga bu ñëpp gëmoon ni du mujj fenn ñun ñi di ci sonn ñëpp kenn du ci sonn ah. waaye dañoo gëm ni complot la buñ teg pour xañ candidat mu bokk. donte day jafe pour ñu def ko. complot la buñ teg pour yàq as loolu moo tax ñi ci sonn ñëpp di ci sonn li ma bëgg a wax mooy ni ñuy ñaawloo. teewaayu ay niti Sonko. noonu la ñu war a ñaawloo Gabriel Kane teewaayam Gabriel Kane lu muy wuti foofu daa bokk ci procès bi moom kenn xamu ko pour pourquoi mu am fitu ànd ak Adji Sarr ni da koy accompagner daa bokk ak moom wala sëram la wala wala luñ bokk nee na Adji Sarr dafa tumurank dañ ko war a taxaw moo tax moom mu ñëw fa taxaw mbokk jigéenam Adji Sarr am na ay mbokk waa léegi Adji Sarr dafa tumurank ñu ay mbokkam ñu nga fa waa gis naa leen fa mhm. yaa ngi dégg même bu fekkee ay mbokkam dañoo tumuranke bañ koy taxaw ñoom it ñee dañoo jàpp ni Sonko dañ ko bëgg a jaay doole ñu ñëw taxaw di ko tumura di ko di ko ko di ko soutenir lii la rek <laughs> xanaa moom même Sonko li mu wax naan procès bi bu kenn ñëw loolu moom la engagé man waxuma loolu te gëw ma mais Sonko est-ce que bu waxee loolu ah. moom moom xam na ne d'emblée que mhm. même bu nee bu leen ñëw moom xam na ne gaa yi dinañ ñëw est-ce ah, que xam na Sonko moom devoir am def parce que mhm. Sonko tey bu nee ñëw leen bu réew mi tàkkaatee ñu ne Sonko ko taal moo tax il xam na fi mu jëm xam na li muy wax mhm. waaye man gëw ma ni benn sénégalais dafa war a bàyyi Sonko ak Macky Sall muy wuy ji moom kese loolu waxi caaxaan la man de maa fay jiitu man dinaa taxaw ci wetam waaw sol sama blouson bu ñu dóoree ay lacrymogène ma départ daw comme ñëpp parce que réew mi dafay toll foofu daf koy jar Sonko kenn waru ko bàyyi moom kese muy wuy ci man gëwuma loolu parce que ni affaire bi démarré nii mooy ñoom teggiwuñ seen tànk fi ñu ko tegoon mooy kut ku kut nañ yàq gor gor si wane ni yàqkat la parce que waxi viol mu kenn waxatu ko fi te la justice na ni viol amul moo ko wax mu leer kenn waxloowu ko te moo justice bi waaye fi ne ci liñ nekk mooy yàq deru Ousmane Sonko pour wan tubaab yi nii leen kii euh, liñ doon wax ni nit ku jub la wan réew mi réew mi moom duñ ko gëm parce que réew mi boo compté fukki sénégalais yoo wàññi juróom-ñeent yi gëm nañ ni lii ay tappale la d' accord man loolu laa gëm d' accord alors euh, ñu ñëw tuuti aussi ci euh, démarche bu avocat benn ci avocat am muy maître El Hadj Diouf mm-hmm. on convient tous que Adji Sarr am na droit défense ñu défendre ko mm-hmm. maître El Hadj Diouf moo koy défendre ak maître Abdou Dialy maintenant démarche bu maître El ak coaching bi mu doon def ci mbedd bi bi ñu doon dem ci tribunal bi ak fugg bi mu àndaloon euh, détermination bu mu àndaloon mu mel ni euh, foofu aussi waa ji dafa jóg ak benn objectif naturellement défendre clientam c'est normal waaye aussi beneen bi am na leneen peut-être lu ñu mën a gis foofu lu mu mën a doon waaw xam nga maître El Hadj Diouf moom ku ko xam xam ni li muy def nii habitude am la Me El Hadj Diouf ta gagné procès xam nga benn procès bu mag bu Me El Hadj Diouf musta gagné. Hmm, c'est un avocat international. mais wax ma bu mu gagné procès bii ñu la procès bu sérieux la. ñu la Me El Hadj Diouf am na procès bu ñàkk sérieux imam euh, waaw maanaam procès bi sérieux wul bii nii pourtant tuuma kii la de non bii sérieux wul dinaa procès Issa Habré Me El Hadj Diouf da ñàkk fi li ci xew ñun ñëpp xam nañ ko ak yeneeni procès kon Me El Hadj Diouf lay def show mu ngi mel ni Wally Seck rek wala Youssou Ndour mu toog di show pour nit ñi xam ne lii dossier bi ci show la nekk premier El Hadj Diouf kenn dugalu ko ci dossier bi moom moo ci dugg avocat Adji Sarr ku sérieux ki mosoo koo dégg man boo dégg guma ko mu wax bu amee lu muy wax day bind ñoom toogaat place mais El Hadj Diouf occupé na média yi ak rajo xëy na ci mission la nekk mais loolu du ci amee ndam au contraire dama gëm day tax Sénégal yi gën leen a wan ginnaaw dama gëm ni show yooyu mag El Hadj di def day tax sénégalais bi toog moom di observer gëm ni complot bi da koy gën a leeral. Mm-hmm. man dama gëm ni Macky Sall buy ñàkk nguuram gi quatre vingt quinze pour cent yi